mais bii nañu dugg suñu rëbbi. damay fay damay fay. comme la soxla saa yi bu reer bu reer ñu nekki kenn liggéeyul. pas de travail. maa ko wax. Come on. Thank you. jërëjëf

askanu zone lii teg la ko xam ne annoncé woon ko grand public ngeen def lii si liggéey nag mooy sas ngeen ma mais lebal ngeen lebal ngeen ma dinaa leen fay ba bis dëgg la kenn liñ bëgg mooy Diop tay di teew fii Ismaïla Goudiaby di teew fii Mame Fara Ndiaye di tew fi te ñoom ñëpp ay jëkkëri politique fraîchement libéré ñu bëgg fi wa quelques mois mu amati ben doomu Sénégal bu ñuy jéng juróom ñetti wër ne la yaay terroriste jékki-jékki libéré la nga té te ñu ne jàmm lañ bëgg ci réew loolu war a am loolu nag ver que é hora dos irmãos. Você quer para mim, não é tarde, já te digo. Para algum tempo, é tem tempo, tem mil, se vai se bem. Def leen presse def leen presse Ken, ngi ci bi y avait beaucoup d'inconnus Xamulo fi nga jëm xamulo ba xam ding fay laaj deñ la may tout ça mais dama ne dama dem rek ci conditions yi difficile mais au bout de de quelques jours yegg naa fi ma jëm ma demee demandé leen asile ñu may ma maintenant nak lolu nak moy solos exil bi Moy continuer à exister politiquement et ci il y avait deux postures y avait une posture défensive mais y avait une posture offensive posture défensive bi moy note bi ñi note il faut ñu xex ko d'où la nécessité de créer une plateforme appelée Chemin de la Libération xam parti bien ko mais assistance morale psychologique dem ci seen famille di leen consoler mais di def ay activité ay communiquer, di dénoncer seen sort di yëgal sénégalais de di alerter donc la plateforme boobu maa ngi remercier di remercier Guy Marius Sagna Fatima Meng ak toute la JPS ñoom Salimata Dieng ñu ngi fa teewloon ak ñoom suñ suñ bureau yëpp jarumay tudd seen tur ñu nekk ci départementaux JPS te am nañu si teew donc loolu liggéey bobu il fallait mu continuer ñoo ñu ngi ko doon ñu ci doon japp euh, diko piloter benen bi moy aussi GPS bi ma la parce que nit buñ la wolé dénk la responsabilité c'est leader dem kasso yow tam nga génn dem kasso wala nga dugg ci lal bi do def dara amul sens ce rôle moy noonu ko joué pleinement donc GPS bu ñu ma dénkoon fexe naa ba continuer ko diko coordonner coordonné ba gis ngeen ne luñ tollé ci parrainage mouvement membre militant jeunes yi ñoo def li liggéey bi yépp que ça soit du côté saisie que ça soit du côté euh, wàcc sur le terrain. puis loolu weesoo aussi gisoon ngeen la grande offensive fatt fépp. dañu Japon seen i suñu yenn militants yi ko doon def Médina maa ngi leen di masaw ñu presque ñëpp génn nañ di leen souhaité ñu jàllu famille. ça on l'a déroulé pendant 45 jours en tout cas du 16 décembre au 31 janvier. Fexé bay dugg ci kër yi wax sénégalais ñu dem jëli seen carte électeur wax leen ci enjeu yi dem ci élection présidentielle coordonnateur départemental JPS di ko def fépp ci Sénégal

non sincèrement suis pas une autorité malienne parce qu'en réalité asile les euh, réfugiés réfugié politique qu'on ko ko la convention de Genève de 1951 xam aussi loi malienne de 1998 la loi qui a été ni pour les réfugiés politiques. Il y a beaucoup de conditions qui mooy bul émixé wu ci li politique Et aussi dama fa qui ont ak ñeneen beaucoup xam état bi régime donc ku nous, nous da ngay maandu ci mbirum réew mi soo rek autorités yi seeti la nga photo en ñom ak ñom genre yoyu seet dalal la boog nga seeti len lolu du rafet donc il faut que ma maandu ci mbirum réew mi sur le plan politique intérieur loolu mooy le minimum ma waron def motax euh, ma ma cloisonné wu sama kii n'empêche ñom don nañ ma euh, veiller bu baax ci côté sécurité donc euh, lolu dal mo nekkoon sama relation autorité malienne mais y avait pas de relation politique. D'accord alors euh, ñu ñëw ci euh, li nga xamante moo di élection yi ñu gis ni que euh, Diomaye nekk na ko nga xamante ni peut-être moom muy mbetteel ci élection yi ñëpp jàppoon nañ ni que du bokk parce que mu ngi bokk ci parti boo xam ne dañ ko dissoudre ñu ngi déggoon ay wax yoo xamante ne ni ñu dissoudre parti ka nekkoon ci parti ba dina toog ay at du bokk si si élection et tout ñu gis ne kii di Diomaye ñu xëy rek gis ne que conseil constitutionnel daal dina valider sa candidature ana ban liggéey nga si nga si joué ak tey euh, lan la ñu wax. non d'abord euh, période boobu sur le plan greffier da période boobu sur le plan juridique gisoon ngeen ñu def ay live surtout sur Jotna leeral nit ñi ne wax jooju amul fenn donc loolu moom dañ ci jouer suñu rôle si biir mais ci biti aussi leeral Sénégalais yi ne loolu ay ay ay naxas a këndëng juste pour manipuler nit ñi pour buñ jàllalee forfaiture bi mu jàll mais mënul sax jàll parce que j'étais étais man j' convaincu de ça parce que juge du lu mu wax baax na fii juge àtte na fi loo xam ne d'accord ci mais am na yenn type de forfaiture yoo xam mënuñ fa yegg parce que dafa am loi boo xam ne mooy organiser justice Sénégal en 2014 dañ ko def dafay wax toutes les décisions de justice doivent être motivées à peine de nullité décision justice dañ ko war a motiver sinon day nul moo tax jiw parti bi dafa dissoudre dañ ko mais xam nga loolu du wax parti bi dissoudre nañ ko oui mais ñun ñi bu dem dem candidat est-ce que mën nga wax képp ku bokk passé élection locale yi ñëw mënoo nekk conseil municipal man mi bokkoon passé tu ma demee fekk APR mënuñ ma def candidat ci élection législative wala leneen donc man sama liberté de candidature man liberté civile man liberté politique ça n'a rien à voir avec l'appareil qui a été définitivement en tout cas annihilé sur le plan administratif donc évidemment, nous évident la sénégalais et heureusement que conseil constitutionnel a fa droit mais loolu amul solo li am solo d'abord lan moy li xew li xew moy li factuel parce que dañu naan les faits sont sacrés le commentaire est libre li nga xam ne kenn mënu ko werante mooy jëf yi mooy nañ ay détenus politiques loolu nag bu yàgg la woon moo tax mënuñu lu dul félicité wu ci foofu laay alerté ni nit ñi ay wér ñu neub ko jant ci lu dul yoon wala kuñu téré mu dellu ci réewum wala génné ko réewum parce dañ ko contraindre exil contrainte la kooku bu dellu see ci famem ñi ko tëjoon dellu si mooy moom moo am ndam aussi simple que ça kon lolu luñu ñu rafetlu la waruñu foon toog benn seconde aussi may nañu ndam parce que ku ci génn bu waxé sénégalais yi xam ne kii waruñu koon ay commerçants am dañ leen fekk ñëw embarquer leen ay xalé yu ndaw leneen li moy li muy prouvé mooy ki la doon jiiñ terrorisme jël ay infraction yo xamné je l'avais dit à l'époque sa diiru dund mën nañu ko ci tëj mu xëy la interroger wu la au fond até wu la bay la mais am nga nak kon nañ siggi ñom waa Pastef nañu siggi Sénégal bu ñu rus mel ni ay protocole ñi mais nit nag boo demee ba nekk acteur politique moo xam pouvoir nga bokk wala opposition nga dem ba ay nit bu ñu leen di bàyyi ay innocent def ñu dara jeunesse réew mi nga ciy mer naan la mooy waxtaan ci suuf la moo xew ci suuf moom bi ñu koy bàyyi en septembre 2019 lan moo xewoon ci suuf leader boobu noonu élection yi dina wane kan moom moom Grand Yoff ak kan moom moom Dakar ñooñu nañu respecté sénégalais leer na leen ni ñoom ñun ñii ni di wax ay xale nañ de mais gënuñ ñooñu boo xam réew nu muy doxee jàng nañ fi ñu war a jàngee formé nañ ci ay école d'état yu gën a mag bu ñu séqee langue politique bi nañ ko def mu nekk langue bu civilisée nga xam ne bataayu argument par argument la projet politique par projet politique programme par programme mais benn régime boo xam ne yow dala doon noot ñu ñu taxaw ne waruñ laa noot mu jékki-jékki bàyyi la yéen ñaa ngeen waxtaan am nga ci droit mu am ñeneen ñu mu noot ba mu jékki-jékki mu bàyyi leen moo xam ay objectif nga naan lan ma ñu waxtaan ci suuf kon yow war nañ xoolaat est-ce que yow am nga yërëm ànd ci ndaw yi war nañ xoolaat est-ce que yow sénégalais yi. tay dal ben sentiment mo ñu amee am animé sentiment wu contenté waye tamit sentiment fierté tout simplement waye di wax ni lii ce n'était ce n'est qu'un début ce n'est qu'un commencement que le meilleur reste à venir tout simplement loolu lañ mëna wax tout simplement wa machallah xaar nañ ko parce que c'est un acteur politique bi nga xamanteni ni nit ñi bëgg nañ ko nit ñi sopp nañ ko te ñu ko soppee lenn la grâce ak xam-xam bi mu am charisme bi mu am ak capacité bi mu am tout simplement à fédérer les foules machallah allah loolu lañ wax je wax PDS ñu leen wax parce que li ñuy wax à Pastef ici euh, jeunes yi ñooy fer de lance Pastef jeunes yi ñooy doole Pastef te jeunes yi ñooy porté bépp projet bi nga xamante ni Pastef moom la def te jeunes yi tamit dañoo bokk si ñi nga xamante ni président Ousmane Sonko dafa am baax baax si yaakaar si ñoom donc euh, si campagne électorale bi na am benn taxawaay bu mu fa war a am macha allah taxawaay bu mu ci am mu ci ay ñoo war a taxaw doon benn say taxaw parce que on a un élire on président élire et on a des frères simplement loolu rek laa leen mën a wax simplement. tey am mbégte ñëwoon teeru suñu coordonnateur Ngagne Demba mu nekk un jeune dynamique un jeune fonctionnaire un jeune leader bu amal njëriñ communauté am amal njëriñ réewam waaye malheureusement politique bu ñaaw taxoon mu génn réew mi ci loo xamante ne neexul kenn ndax mënoon na ko amal njariñ communauté amal njariñ administration judiciaire bu doon servir donc ndaw bobu bu dellu see si réew pour continuer à servir son pays pour continuer nekk si waxtu njabootam mënuñu lu dul dëkk ci kontaan donc dañuy félicité wu dañ koy féliciter ci effort boo mu def ñëw jël soit ci réewam continuer servir réewam continuer servir parti bu mu bokkal muy Pastef donc mbégte rek la ñu mën a formuler tey jii en tant que jeune patriote di ñaan rek ñi xamante ne aussi ñoo nekk si kaso yi te ñu leen génne fan yi ñu génne leen si kaso yi parce que foofu du seen place ñu si bari dañoo yoroon seen liggéey amaloon njëriñ seen askan amal njëriñ réew mi ñu dellu siwaat seen njaboot képp nga xamante ne aussi moo génnoon réew mi ndax politique yalla dogal ñu le sa waat ndax réew mi soxla na leen donc di nak di def appel nak le président Macky Sall di wane ne la constitution de ce pays ne respecter le calendrier républicain ne respectons la décision du conseil constitutionnel pour fixer une date ci lu organiser des élections askan wi tànn kii mu bëgg tan inshallah le 2 avril ñu génn ñu génn palais jox ko ko continuer gérer les destinées de Sénégalais loolu nekkul duñ koy ñaan mais c'est une exigence yoon la da ko war a doxal donc foofu laa am loolu laa am lu may wax maa ngi tënk ko di leen jaajëfal di kontaan si ñëpp di am mbégte tey di dalal euh, le coordinateur nekk nga Demba moom euh, génn na ko euh, Sénégal mu six mois ak quelques jours tey naka ngeen ko doon dundee waaw ñu ngi doon déggante donte doon lu bari ñu ngi doon déggante. Euh, léeg-léeg ñu déggante waaye loolu bëri nag dund bi itam amuloon benn jafe-jafe ndax yàlla def na moom dafa juddoo ci kër gi ñu bokk fi nekk moom yaroon fi mu nekk fee soxnaam comme ay moromam kon demam bu mu demoon semaine du lu métti woon ci ñun ci kër gi genn disaay gi itam yokkuloon benn disaay ci kër gi vraiment te moom itam ba mu demee ñu ngi koy dégg daal di gis tamit ay waxam su ma gisee lu xam ne ëpp na waxtu bu ma ko jotee dinaa ko ne dellu ndànk defal ndànk li lii ko jëm politicien ñoom ñoo ko dépassé politicien vraiment neexuñoo digal moom moom moom bi ñu xam gëm bi ñu xas gëm la ñu gëm rek moo tax moom digal ko yombul politicien man bokk ma ci politique vraiment man politique boobu. Mmh. waaw def ndànk ndaw yi li leen dénk nañ def ndànk nañu dal. wàññi tension tension bi ñuy doxee ñu xaw ko wàññi tuuti waxuma bu ñuy liggéey de waxuma bu ñu politique waxuma bu ñu wut lu baax ci réew mi loolu moo ko fa nekk da ngaa bëgg mu baax nga jéem waaye nag dëgg-dëgg nañu wàññi tuuti ndax at yi ñu génn métti na trop ci ci yi ak xale yi at yi ñu génn métti na trop ci wax nag ne fii la bu wax ne fee la loolu ma ko mos a wax ndax xaw ma ko wante daal li wértu woon ma su may dégg ndaw yi dama leen daan nañu wàccee seen tuuti. góorgóorlu dox ndànk ba yegg fa ñu war a jëm incha allah yegg fa jëm ndax réew mi ñëpp a bëgg mu baax ñëpp amul kenn ku xam ne yaa ngi dugg ci doo Sénégal nekk te bëgguloo Sénégal. ndaw yi nañu def ndànk rek te dox ndànk ba yegg fa jëm man loolu laa leen dégg. loolu loolu mënul ñàkk ku jur doom nekk ak moom bu am 30 ans ci sa génn dëkk bi bu mosee génn dëkk bi li mu mos génn dëkk bi dem sax Saalum nga ñu jógee woon man maa ngi moom a ànd ci sama oto maa koy yóbbu mu siyaare maamam siyaare maamam bu jigéen ñu ànd ñëpp ñib siwaat mosul génn Ndakaaru bu génn dem am 6 mois kay da nga am loo yëg du ñàkk bis kay nga toog sa xol jooy loolu mënul ñàkk waaye nag si kéwu ma kenn de. nekkul ne damaa kenn kii moo def parce que politique boo ci duggee itam lu nekk mën na la caa xam nañ ko ñun moo tax. mu ñëwee mooy kontaan trop trop trop si ma xool sant yàlla bu baax dal di wax ne alhamdulilahi ala kulli xaalin mbir mu nekk rek euh, dañ koy sant yàlla yàlla moom lañ sant ñun dañu sant yàlla rek. moom li ma koy dénk mooy li ma leen wax rek li ma dénk daw yëpp rek na def ndànk na def ndànk def ndànk terewul la yegg fa nga jëm na def ndànk na wàññi na dox ndànk te de lépp ju teg ko ci yoon rek bu ko defee yàlla mën na leen dimbale fi ngeen bëgg senegal bi yegg ci baax mu yegg fa loolu rek la.